moytandikul sa yow mere ne sa borom kër mayma sama baat yeen ñaar donc muy mer ne la may sa baat amul seede ngeen continuer sey nga merat ne ko fasema mu ni la fasena la ngeen continuer sey amul seede nga merat ne ko fasema mu ni la fasena la mba nga tàcc ko ñett ñettal ne ko mayma sama baat mba nga jek jek ne sa jabar fasenala. la ngeen tok nan sey bi amul seede tas bi amul seede bokki batu fasé bu jibé ci sey sharia am na bu fekkee benn yoon la sëy ba tas na donte amul seede bu ngeen continuaatee am ngeen benn fase su ma ñett faaw baax de zaw ji bari na ñuy sëy fekk dañuy njaaloo na la yàlla gën a lépp bàyyil xel li la fi indi lu mu doon lislaam bi ñu ne du ay xalaat ay texte la